I shall not be your Fallou Thiam mbedd mu ñu génn mu dogale ñu am rahmatullah taala wa barakaatu yéen suñu mbokk julit suñu mbokk talibé yi le 24 février incha allah rabbi ñepp mobilisé fële ci urne ya voté suñu président de la république du Sénégal dès le premier tour mondial jàll fii kat mérité nañ ko man la santé avant tout lay wax parce que fi dafa am lo xamné ne xoolal kilomètre di ñi daw rombo boss de santé rombo case de santé te nit dafa wara a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 di leen balu di leen masawu coono di nuyu coordonnateur maron Darou di Morlo sunu xarit di nuyu directeur Kourous sama xarit xaritu président de la République di ko jàppale mooy Cheikh di nuyu Fallou Ndiaye gindi askan wi sunu xarit di xaritu président de la république di nuyu sëñ Khadim Ndiaye mi nga xam ne moom it ni ñu ko waxee dafa jóge France ñëw fii pour jàppale ñu. ci jigéen ñi may nuyu soxna Assou Basel di ko wax mu joxeel ma sama nuyoo jigéen ñi fii ma ñëw du fuñ may wax du fuñ may wan. ñoom Talla Sylla la ñoom ñii nga xam ne Cheikh Dieng ñi ngi ciy sonn. nañ leen jàppale loolu nag lañ cee war a xeex bu ñu gañee ba pare te loolu man maa jiite combat bi man maa koy jiite parce que amatuma lu may prouvé lu dul jàppale président de la République sama xarit waa ma ne dégg naa démb loolu it noonu la amee ci jigéen ñi noonu la ame ci jigéen ñi nañ leen jàppale ngeen am cër ñu jox leen ay postu ngeen mën a jàppale Touba mais démb dégg naa benn góor gu fi ñëw ne nañu taal dëkk bi mais bi mu ko waxee ku ne gis na ne bi ko sëñ bi waree tontu daa bañ ne sëñ bi jërul nga may tontu nañ dem ci biir ñu waxtaan kon xam ngeen ne bëggul sëñ bi ne ko bëgguma ku taal dëkk bi te sëñ bi du ko nangu mais kooku bi muy doon président de la république yéen jigéen ñi muy Abdou Diouf bi mu fiy jógee mi ngi fi bàyyi saako ceeb 7500 booba gaz mi ngi jar 1500 mu yóbbu ceeb ba 19000. mu yóbbu gaas bi ba 3500 ba 4000 loolu yéen jigéen ñi xam ngeen ko kilo suukar mi ngi doon jar 500 mu yóbbu ko ba 700 bi président Macky Sall ñëwee dafa wax ne ceeb bi indi naa ko ba 12500 xool leen lim ci wàññi kon borom kër yi bàyyi leen ci xel de mu ne xaalis bi ñu fiy def jaaduwul nee na xaalis bi ñu jox sëriñ si jaaduwul ci màggal yi nee na siyaar yi jaaduwul démb sa dégg naa mu def erreur bu rëy. nee na yàlla du mooy fal nee na nit ñoy fal loolu erreur bu mënu ko passé nee na yàlla mënut a fal nit ñi ñooy fal. kenn du ko caaxaane ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.